salaamaaleykum mbokk euh, auditeur auditrice wu réew mi fm daleen ak jàmm seen émission sans filtre euh, jotaay ndaw ñi la fii ci réew mi fm lay amee mercredi bu jot 15 jàpp 16 heures euh, ñu fiy dalal ay ndaw fas yéene waxtaan ci ay sujet yi nga xam ne moonu soxal tey ñu dalal Luc Barela ak Jacques Syna bokk si CICOMAP di comité interdécanal de coordination de la marche pèlerinage lépp lu jëm ci wàllum pèlerinage marial de Popenguine mbokk yi moom la ñu fiy waxtaanee ndax émission sans filtre la bokk ba ci religion yi laata ma leen jox kàddu Mor Fall yaa ngi ci plateau bi ma bàyyi la nga nuyu te mbokku déglukat yi. waaw Sidi maa ngi leen nuyu di nuyu suñu invité du jour yi di nuyu mboolem ñi nga xamante ñoo ñuy déglu saa su nekk euh, ci réew mi FM ak seen euh, émission bi nga xamante mooy Espace waaw nga commencé par euh, rubrique actualité lu gën a fës. waaw rubrique actualité tey dañ koy accentuer ak ñombe bi nga xamante ni moo moo xew ci dëkk bi tey. Mm-hmm. Euh, fi nga xamante ni mooy kër ba Ngom lu toll ci huit cent millions. Mm-hmm. donc euh, mu nekk loo xamante ni jamono ji moo nekk waxtaanu ñëpp. ci biir Sénégal mën na wax sax biir biir àdduna mhm. parce que bu nekk loo xamante ne jaaxal na Sénégalais yi na la nit mën a gardee euh, benn somme bi ci biir kër lu toll ci huit cent millions alors que ñëpp xam nañ ne loi sax am na lu mu teg ci no benn somme boo xamante ni nga ko war a garder ci kër ak loo xamante ne waroo garder ci kër je pense que boo demee sax ba am benn somme lu toll ci deux cent millions bu ko ëppee mhm. loolu waru ko garder ci kër donc euh, nit ku yor nag huit cent millions di ko garder kër ba nit di ko sàcc donc je pense que loolu loolu loolu yàpp yàpp sénégalais la sax euh, lu ñu war a xoolaat parce que na la nit mën a koo xamante ni yow nekkoo euh, opérateur économique euh, yoroo ay entreprise yoroo dara lu dul li ngay woote boobu moom mooy je suis le griot du président mm-hmm. ngay

foog mu di euh, Luc Barela yaa ngi fii ci plateau bi toogal fii si ko map ma jox la kàddu gi bàyyi la nga nuyoon seen mbokk auditeur réew mi FM. salaamaaleykum ñu ngi nuyu mbokk auditeurs yëpp yi saafontoo di déglu réew mi FM. Mhm. Euh, ñoo ngi nuyu sénégalais yi di lañuy masawu coono. Mhm. si dëkk bi métti na trop. Mhm. Euh, gis nañ dëkk nu muy doxee ñooy nuyu ñëpp ku nekk sa tur ak sant. merci Jacques Sina yow itam bokk nga ci si ko map yaa ngi toog fi ma bàyyi la nga ñëw ca mbokk auditeurs yi. waaw di leen nuyu yéen ñii déjà ma bokk ak plateau bi di nuyu auditeurs yeeg auditrices yi mi FM. ñu ñuy mhm. déglu. Mhm. di ñuy bàyyi xel saa su ne. Euh, li ma mën a wax tamit mooy gërëm leen rek. Mhm. waaw. merci beaucoup euh, gis ngeen euh, rubrique actualité bi Mor Fall indi moom moom moo nga xam ne gëwlu euh, Macky Sall la. Eh, sàcc nañ ko lu Farba Ngom jiw <laughs> <laughs> voilà gëwlu Macky yu sàcc lu toll ci huit cent lu si seen position ndax nit war na denc somme bu toll noonu sa biir kër ba ñu koy sàcc. ba loolu xaw na yéeme parce xam naa ne su nekkoon benn nit bu lambda. Euh, xam naa du fanaan këram dinañ ko jël si mais bon dëkk bi comme ni mu fa demee la rek ñii dañu mu am droit def lii ñii amuñu droit def lii. y' a deux citoyens deux Sénégalais deux Sénégalais ñoo am. Mhm. y' a y' a y' a les Sénégalais et les Sénégalais six. Mhm. waaw. <laughs> Jacques. bon man mun naa ne tey laa yëg information yi wala ñoo ko bokkandoo yëgandoo ñun ñëpp <laughs> ah man damaa mujjee jaaxle sax bu ma déggee nii genre nit yooyu bon dama ne genre nit yooyu sax mais des personnes yoo xam ne ne bon amuñu yenn responsabilité wala statut yoo xam ne ah, ci réew mi loo koy tutali c'est le griot du président. ah waaw mais nekk le griot du président taxul tamit war a mën a détenir yenn somme yooyu noonu sa biir kër comme j'ai l'habitude de le dire non on n'a pas on manque pas d'argent mm mais on manque de bons dirigeants des leaders. Mhm. parce que je me dis que nii ñoom ñi nekk ci bopp bi kaw gi sax laay wax ñoom ñi sax ñu naan griot yi griot yi waroon griot boobu noonu sax waroon na mën a jàppale askan wi. Mhm. Mhm. parce que man je me dis que ni boo demee ba am yenn dayo yi nii war nga mën a bàyyi xel ci askan gi parce que askan gi tamit dañ lay euh, jox nopp. kon war nga mën a teewoo teewoo askan bi tamit. mais garder somme gu mel noonu ah mais que la justice tamit fasse son travail aussi ah def enquête yi ci war. vraiment éclaircir les choses que voilà le public l'opinion publique mhm. puisse vraiment savoir vraiment affaire bi nu mu demee tamit ñu éclaircir ñu rek d'accord en tout cas euh, ñu bëri lu ñuy laaj mooy xaalis boobu fan la jógee euh, parce que ñu ngi ne un simple griot naka la war a amee autant d'argent ba di ko garder ci këram de toute façon euh, wait and see comme on dit question bu sax <laughs> man bon man j'ai y a des ki qui me Sénégal mhm. le griot du président le snapper du président mais on comprend pas quoi c'est-à-dire euh, quelle est l'utilité d'un griot pour, euh, le président j'ai jamais vu un président bu ñëw eh. taxaw mu wax di jottali kenn kooku di waxaat eh, te te am na am na am na kii porte-parole du gouvernement donc c'est quoi le rôle di griot du président hmm. donc ñu def ko léegi liggéey et le snap aussi très bonne question en tout cas Luc Barela merci <laughs> beaucoup euh, voilà merci dañuy ñëw rek ci suñu thème euh, li ñu fiy tax a jug tey mooy waxtaanee li nga xam ne mooy tourner autour du pèlerinage marial de Popenguine euh, rawatina marche bi nga xam ne ndaw ñi ñoom ñu ngi koy def at bu jot jugee Ndakaaru marche wutali dem ba Popenguine waaye laataa may ñëw ci sama première question man li ma leen di jëkk di laaj moo di toog nañu ñaari at yoo xam ne je pense que 2019 la ñu gëj dem pèlerinage avant a Popenguine amul ndax gis nañ basum coronavirus bi ni mu gàllankooree dëkk bi ba archevêque tere ko yéen naka ngeen ko dundee en tant que je pense que da ngeen di marche voilà deux ans ngeen toog marche yoo leen dem moom la Popenguine période boobu yéen noonu noo leen ko dundee ak tey 2022 euh, archevêque ne pèlerinage dina am voilà bàyyi laa ba météo na météwul parce su ñu xoolee soo xoolee sa pas-pas ak sa bëgg-bëgg ak euh, xaar bu ñuy xaar match parce que match je peux dire que événement la événement événement boo xam ne na sax événement national mhm. da ngay xaar si sous région bi yëpp ba euh, gars fu nekk la ñuy jógee si Sénégal ak li ko wër mhm. ñoom ñëpp ñëw ñoom ñëpp jubali Popenguine ngir dem seeti Mariama donc toog ba période bi jot munoo dem météoon na mais y a des alternatives comme Popenguine à la maison mhm. bon certes Euh, y a eu les gens essaient de gars yi jéem nañu euh, dafay ambiance jéem a rappeler wu souvenir dugalaat photo yu daaw yi yeneen édition yi. Mhm. bon pour deux mille deux mille vingt bi. boobu xawoon na sax tane mais deux mille vingt et un dafa gën a métti parce que photo deux mille dix neuf lay ne donc. Mhm. affaire bi day xaw a sore. Mhm. donc métti bi day gën a day gën a bëri donc ñu namm ko moo tax ren bon. suñu njiit bi bu ñu nee de am moom dëgg fa yàlla soulagement bu graaw lay di mbégte bu bëri si jeunes yu bëri. Mhm. waaw Jacques Jacques yow deux ans yooyu yow noo ko dundee. waaw dama ko dundee comme bépp marché rek. parce que toog tamit deux années yoo xam ne successives yoo xam ne marché ñu ko tamit ak lu marché doon def ci ñun sensation bi nga ciy am. ki ko def rek moo mën a moo la mën a expliquer. ku marché gul des fois da nga gis ñoo xam dañuy marché seen première année sax day metti mais dañu ne déwén dañuy ñëwaat. kon ñoom ils ont expérimenté quelque chose c'est pas marché comme ni nit ñi di defee randonnée randonnée pédestre non non mais c'est un c'est une démarche de fois donc nit ñooñu ñoo xam lu lañ ciy yëg donc deux ans yi ñu toog metti woon na comme ni ko lii ko waxee première année on a compris on a essayé de de s'adapter avec euh, les mesures barrières tout la ak restrictions yi amoon mm-hmm. mais deuxième année bi muy deux mille vingt bi boo boo leen sax y avait certains jeunes qui ñu jógoon ne ñoom dañuy marche vous voyez ñu bëggoon ne force coûte que coûte ne dañuy marche mais après je peux dire que par l'intervention ou bien Euh, yenn jeunes yi tamit jëm nañ leen sensibiliser man mii sax bokkoon naa ci ñu dëgëroon fi nii dañuy marché <laughs> waaye barñi laa yem dellu si waat donc waaye parce que dañoo demoon ba dañ ko miis woon tàmm ko mm. donc deux ans yooyu noonu sans marche metti woon nañu mais tamit action de grâce comme la ñuy wax église tamit hiérarchie la dañoo am ay kilifa suñu kilifa la ñuy déglu bu ñu joxee ndogal ñu def bu ñu teree ñu bàyyi aussi mm-hmm. donc par la grâce de Dieu année bi jox nañu ndogal ñu ne mën nañ marche mm-hmm. certes que ni Euh, décision bi c'est tombé un peu tardive je dirais que 3 mars je dirais la ñu la ñu jot presque tout ñun ñëpp ñu jotandoo information bi mm-hmm. mais sant yàlla aussi mm-hmm. avec ces trois mois de préparation et que on a eu l'expérience des années passées espérons que ça se passera tamit la meilleure tamit. Mm-hmm. voilà voilà euh, Psychomap euh, c'est quoi son rôle dans la marche pèlerinage. bon SICOMAP déjà lu lu koy firndeel mooy comité interdécanal de coordination de la marche pèlerinage donc mooy euh, kuréel buy organiser dox bi saa à dox bi euh, du dox boo xam ne ku nekk da ngay ñëw rek ñu tase fenn rek acca waaw man Jean man Paul ñu ñëw daje rek acca ñu dañuy jëbali Popenguine donc euh, loo gis day am organisation donc loolu moo waral ñu créer SICOMAP ñoo koy créé en 2005. Mhm. mu remplacer euh, le comité de coordination de la marche pèlerine yooyu yëpp euh, kuréel yooyu yëpp bokk si lu ñuy woowee CNPP. Mhm. mooy ñu yor euh, comité national du pèlerinage de Popenguine ñoo ñu rattaché wu yëpp si centrale des œuvres donc loolu mooy soo xoolee ramification bi mooy si ko map nu mu nu mu génnee. Mhm. donc fallait mu am benn kuréel boo xam ne mooy taxaw saytu xool xalaat. xool nu ñuy nu ñu nu ñu nar doxee marit lañu war a doxee ñan ñoo war a dox ak yan anam lañ ko war a defee xam euh, kaaraange bi foog ñu xool ko wérgu yaram yi foog ñu xool ko donc euh, am na lu bëri lu lu lu lu ëmb loo xam ne dafa bokk si ci dox bi. lu mhm. jóg rek comme man ma jóg rek ànd ak sama copain rek ñu ne dañuy jóg rek dem dox yi dem géejuwaay. Mhm. dox yi yu mhm. donc foog ñu fa fale ko mu am lenn loo xam ne muy saytu xool lépp nu muy demee mu mun ko togg ne teg na yi ci yoon ne ah, nii la ñuy demee parce que loo gis moom foog mu am foog moom foog moom yoon kaa yi nii la ñuy demee si nii lañ ko war a defee comme ça mu leer si bopp ñëpp mu yomb si ñëpp. Mhm. loolu mooy war a si kaw. Euh, kan moo war a effectuer marche bi wala képp kuy jeune chrétien rek ku mu neex war nga mën a dem inscrire nga dem. wala y a des de sélection pour ñu war a mën a dem marche. bon d'habitude y a de critères. Mm. képp kuy chrétien même nga nekkul chrétien. ngay doon musulman sax vraiment ngay nekk musulman. nga sopp Mariama suñu yaay bu sellam ndax bu ñuy dem euh, Popenguine dañuy dem pour ñaani ko pour ziyaari ji ko comme ni ñu koy waxee. Mm-hmm. y a pas aussi. Mm-hmm. tu vois des enfants qui on dix ans douze ans. ñuy marche tu vois même mm-hmm. des de grandes personnes yoo xam ne am nañ peut-être cinquantaine bi wala dépassé nañ ko mm-hmm. di marche mm-hmm. mais souvent dañuy wax euh, ñii di marche les marcheurs ñi ñuy souvent ñuy man euh, déclarer seeni pathologie des fois dañ am ñoo xam ne dañ am feebar bëgg marche te seen yaram da ko àttan seen médecin bu leen teree interdit la ñu bañ ñu bañ a marche c'est pas l'appel ñuy forcer parce que engouement bi neex na mais tamit santé foog nga xool ko aussi. Mhm. santé mooy priorité. Mhm. donc ku sa yaram jagul bul forcer nga dem. Mhm. ku sa yaram jag nag voilà mun nga ñëw nga marche. ñaata foyer de marche moo am ak aussi marche bi naka lay demee. waaw sama wàññi nag si olof nag dafa kiiw xam naa ñeent la ñuy wax quatre ans waaw euh, ñeenti foyer de mooy euh, foyer de marche bu bu ñuy wooyee Sine Petite mooy doyen ne Euh, mooy Dosipec. Mhm. doyen Sine Petite Côte. fois de marche mooy kër bu nekk euh, Kaolack Kolda Tambacounda ak beneen bi mooy kër boo xam ne moo regroupé euh, région de Thiès Saint-Louis Louga mooy ñu nekk ci archidiocèse yooyu. Mhm. ak mooy suñu ak suñu kuréel mooy suñu kër Sicomap moom moo yor lu ñuy wooyee zone urbaine u Dakar bi. Dakar c'est-à-dire archidiocèse de Dakar dafa am ñaari zone mooy benn zone mooy Dosipek sànq wax naa ko léegi zone urbaine bi. Hmm. mooy ñu des paroisse yu des. Hmm. mooy euh, trente paroisse yu des. mooy soo xoolee grande Grand Dakar Yoff doyen Plateau doyen Pikine doyen Kër Massar ak. Euh, Rufisque ak doyen Rufisque. Hmm. waaw muy euh, juróomi doyen yooyu ñoom ñoo nekk si biir si komap mais nag doyen yooyu kii dañuy waa Ziguinchor dañuy fekk si dolli ak euh, waa gàmbi mm-hmm. léegi ñoom ñooy quitté fii à partir de Dakar mais am na ñuy quitté Mbour ñuy quitté côté Thiès léegi côté Mbour bi Dossipec moo fay quitté ak euh, foyer kër bu ñuy këru Kaolack Tamba Kolda bi. Mm-hmm. léegi ñun ñu jógee fii Cap de Biche léegi ñun ñëpp. Mm-hmm. ñu jubali wu euh, wuutu ji fekk ji Mariama bu sell bi. Ah, voilà donc. ñuy rafet lool mais man li ma bëggoon xam ne mooy doxalu li nga xamante ni moom mooy moom mooy moom mooy marché bi

ñu bëri dañuy réeré mbir comme ni mu ko waxee bu ñu nee marche pèlerinage démarche de fois la c'est côté euh, spiritualité li ñuy gën a recherché mais noo côté festive parce que am na engouement am na ambiance gi loolu yëpp mais dox googu noonu doxu ngëm la vous doxu ngëm la Et on peut même prendre comme exemple, il y a la paroisse euh, de Notre-Dame de Djamagan. Mm -hmm. beaucoup de jeunes qui marchent, ils marchent avec des musulmans aussi. Mm -hmm. Il y a des musulmans qui viennent marcher avec nous. Mm -hmm. Donc, comme Luc Don tout à l'heure, c'est comme nous composer aussi. Mhm. Donc, euh, ay structure la te je peux dire avec les différentes commissions parce que am nañ commission finance logistique mhm. commission communication commission restauration commission aussi. liturgie liturgie te liturgie boobu noonu ñoom ñooy gérer lépp loo xam ne ne mooy ñaan mooy prière gi. Mhm. parce que dañuy doxee Cap des Biches ba Popenguine muy cinquante deux kilomètres. Mhm. donc ce qui veut di du matin jusqu'au soir. donc ce qui veut dire c'est pas voilà dina am moment de euh, d'ambiance d'animation mais aussi dina am moment boo xam ne ne typiquement prière la. Mhm. parce que y a les va qu'on va faire. sur le chemin exactement ci marche bi donc waa liturgie ñoom ñooy proposer ay carnet carnet de prière nga xam ne ne chaque marcheur mhm. da koy am mhm. donc vous voyez donc ku nekk commission bu nekk am na liggéey bu muy def mhm. donc bu ñu waxee ci prière di nga benn moment y'a il faut s'abreuver euh, s'abreuvoir aussi mooy ndox bi donc waa commission euh, logistique ñoom ñooy séddale ndox yi à travers les points d'eau vous voyez y'a les points d'eau Bargny Euh, Rufisque yéen tout au long du chemin donc ya a aussi la commission juróom-ñaari voilà juróom-ñaari point d'eau yu am mm-hmm. yoo xam ne ne marché bu ñu yeggee foofu il faut savoir savoir euh, voir quand même naan mën a yokk plus de force. am doole kon ñooñu day nekk donc en permanence foofu di leen xaar. voilà dañu leen a xaar foofu ñoom. ci yenn point voilà ci yenn point ci yenn point dañu leen fay xaar. Mhm. marché bi bu ñëwee. Mhm. ñu jox leen. Mhm. côté moment pause bi muy tubaab jalaaw bu ñu yeggee foofu tamit waa restauration ils vont s'occuper de déjà waa restauration ils s'occupent des marcheurs au niveau de Cap des Biches. déjà le samedi avec euh, l'accueil bu ñu accueillir le dimanche. pour le départ. Mhm. bala ñoo départ dañ leen jox ñu ndékki. Mhm. marché chérie dañ leen jox ñu ndékki la matin bala ñoo départ. Mhm. à la pause à euh, comment dirais-je. à midi tubaab jàllaw dañ leen jox añ tamit. arrivé à Popenguine le dimanche le soir dañ leen jox reer ba lënd bi ñu joxal leen ndékki. Mhm. vous voyez commission restauration loolu lay gérer ci ñoom mhm. donc vous voyez tous ces commissions dañuy ta dañuy travail boole seen doole mhm. pour mën a organiser marché bi ñu mu gën a baaxee mais marché bi yëpp moom day lépp day day nekk ci wàllu spiritualité parce que bay gis ne waaw soo euh, xoolee comme par exemple doxin bi suñuy génn dafa am euh, si chapelet bi am na am am am na am nay mystère. am na cinq mystères. waaw waaw léegi soo xoolee. mystères yi. ah <laughs> <laughs> ah saa ah, yi est-ce que doon def catéchèse. ah non bu fàtte nag man ma j'étais dans rajo. oh waaw passage. <laughs> Oh, oh, oh. ah man bëri woon naa ay xarit yoo xam ne mooy nekk institut Notre Dame ak école yu ma jël yàlla ak man yëpp. ay musulman xam suñ ne quelqu'un pour prier catholique yi taxawee ginnaaw dañu hmm. gis benn musulman ñëw noonu du père yi du fils prier <laughs> ñu ñu pare nag <laughs> ñu fas jom de di rus de ah non mais mais <laughs> soo xoolee dama ay mystère léegi euh, yoon bi dañ ko dagg en cinq étapes hmm. dañ ko dagg en cinq cinq cinq ponc léegi ponc bu nekk dafa am mystère ñu léegi mystère boobu su paree nag si la gars yi di commencé ambiance wax parce que xam nga foog gars yi yëngal tuuti pour mm. gars yi mun a amaat courage am kii parce que xam dox mais juste euh, loolu yëpp lu ko waral mooy cest à sooy dox dox bi déjà métti mais yaa ngi dox yaa ngi ñaan di jël say soxla say problème xam nañu Sénégal instant bii moom mm-hmm. koo fëgg moom nu mu deedee na la génnal juróom-ñaari wala téeméeri problème mm-hmm. waaw donc loolu yëpp ñu ni koy génnee mm-hmm. benn par benn 53 kilomètres bëri na man hmm. man lu ma wax man ne man loolu laa doon wax ma ne man 53 kilomètres. Hmm. peut être sama problème yi bëri na trop mais naa xool balaa maa dem Popenguine damay bind sama hmm. a yu gën a yu gën a am solo. yoo xam ne yitteel na ma trop. chaque kilomètre. su ma ñaanee moom damay forcer si problème am na ko Mariama kilomètre bii moom problème bi laa ko jagleel. donc loolu moo si am solo. moo tax ñuy ñaax jeunes yi ñu gën a euh, tënku si si ñaan bi parce que am na solo. parce que dox ku dox dem kese. na dox pour dem rek. Mhm. ak ku dox topp euh, processus su prière bu lut mhm. euh, commission liturgique bu ñu mhm. def dañoo tànn franchement jël ay paroles jël ay affaire yoo xam ne vraiment dalay laal sa biir xol. gis na di nga soo yeggee waxuma la sax euh, yow soo yeggee ba yeggu grotte ba présenté nag Mariama yegg si naa yow mun na jàpp ne sa popa ngeen validé la. comme sa mbokk ni nga koy waxee. popa ngeen validé. waaw voilà bëggoon nañu xam aussi programme bi naka lay tëree ak paroisse jëm euh, Popenguine paroisse yi naka naka lay demee marche bi ndax ñëpp dañuy ñëw dem wala am na loo leen di def pour ñu def bon programme bi suñ ko xoolee ni ñu ko tëddalee mooy comme euh, samedi bi mhm. gars yi ñuy daje seen seen paroisse yi seen gox-goxaa yi mhm. léegi suñ dajee foofu noonu ñun am na commission logistique am na ay car yu ñu fa yebal mhm. pour paroisse bu nekk pour paroisse bu nekk xam nañ nombre yebal fa nombre de car bu mun jël ñëpp yéen yaa leen di yebal car yi waaw ñun ñooy yebal yi si ko ñooy yebal car yi léegi suñu yebalee kaar yi ñoom suñu jëlee foofu noonu ñoom ñëpp ñu wuutu nag jubal yi pour euh, Cap des Biches. Cap des léegi ñu fàttali nag ren euh, bu ñuy ñëw Cap des Biches c' est vrai que Cap des Biches am na plusieurs entrées. Mhm. mais ñun dañoo euh, digle ne oto yëpp nañu duggee Petit Mbao. Mhm. pour mun ñu jàppale euh, waa sécurité tamit ñu mun a gérer trafic bi. Mhm. parce que tamit euh, am nañu ay dëkkandoor am na ñu fa dëkk am ay oto. Mhm. waruñu ñëw bloqué tali bi def mhm. embouteillage boo xamee. day indi désagrément nit donc ñooy ñaan ñëpp ñu duggee par Petit Mbao. ñu topp plan de circulation bu waa commission euh, santé sécurité bu ñu teg. léegi su ñëwee ba si arrivé bi dañu fekk suñu suñuy naatango waa commission communication. ñoom dinañ leen dinañ leen orienté war leen fu ñu war a jaar. su ñëwee si bunt bi. mooy loolu yëpp 15 heures la la lay commencé dañu commencé accueillir. Mhm. ñu tase waa liturgie. ñu mhm. ñaan suñu ñaanee par ñu dugg ñu installé wu. léegi suñu installé woo diggante boobu noonu bu paroisse di ñëw ba paroisse ba dina am ay euh, confession yi ñuy def ak ay classe de chant loolu lépp dina am ay activité yoo xam ne dañu koy teg pour waajal messe bi. Mhm. parce que 18 heures 30 dañuy def messe bi ñuy woowee euh, l'envoi des marcheurs. l'envoi des marcheurs léegi messe boobu la ñuy def suñu paree messe boobu noonu. Euh, dina dina am lu ñuy woowee dîner gars yi toog def mën a reer def yëpp après nag vingt heures su jotee nag ñu ñaan ñëpp nag ñu dalu ku nekk na euh, nekk sa dal ñu bàyyi bruit bi couvre feu ñëpp mun a noppaleeku parce que suba dañuy lendemain bi dañuy teel a yeew. Mm-hmm. quatre heures la ñuy yeew pour mun a sangu ndekki préparé wu. parce que après six heures dañu war a jël départ par mm-hmm. ordre de marche. Mm-hmm. tirage def nañ tirage yu vendredi passé. donc euh, instant bi nii. gox goxaat bu nekk xam na ban mooy position si mhm. marché bi mhm. donc ku nekk di nga mun xam euh, ñu commencé génn jëlee ko noonu suñ ko jëlee noonu dinañu dox ba 9 heures dinañu taxaw kii euh, baan yi. paroisse bi njëkk dem ban heure lay def. 6 mm. heures lay génn paroisse bi njëkk génn 6 heures génn. léegi su génnee ainsi de ñu koy génnee. Mm. chaque cinq minutes benn paroisse génn ba paroisse ba 31 yi jeex. Mm. léegi ñu dox ba suñu yeggee ba 9 heures. normalement si rythme marche bi 9h première paroisse bi war na yegg mairie Bargny. Mhm. su yeggee mairie Bargny dañuy def alt parce que mhm. dafa am point d'eau gars yi mun a jëlaat ndox parce que soo xoolee diggante 6 ak 9 mun na bañ a tàng. Mhm. ñu xaw a jël ndox tuuri jëlaale ay kii provi jëlaale ay provision gànnaayu pour diggante yoon bi. léegi suñ jëlee loolu nañ doxaat léegi euh, normalement première paroisse boobu war na yeggaat au niveau de Yène. au niveau de Yène mooy soo paasee Sendou bi. mooy si intersection euh, Sendou Yène bi war na fa onze heures mu def pause su defee pause foofu am na point do ñu mën a tam profito tamit comme ñenn yi ñu étiré wu parce que aspect am na aspect sportif tamit. foog mm-hmm. ñuy bàyyi xel si loolu. di xëccum kii euh, muscle yi affaire pour mu bañ a am gàllankoor après. Mm-hmm. léegi suñu jógee foofu nag après ñu utali tubaabu jalaaw si diggante bi am demaat ay point d'eau su ñu yeggee tubaabu jalaaw midi ñu def pause ñu toog ñu añ suñu añee ba pare. Euh, ñu jé jógee foofu treize heures trente wutali nag Popenguine léegi première paroisse bi euh, ñoo la ñuy xaar Popenguine quinze heures trente mais xam naa ne avant dix sept heures wala au plus tard dix sept heures paroisse yëpp nag dañu yegg si Popenguine léegi su ñu yeggee Popenguine nag foofu nag nekkatuñu ay marcheurs. Mm-hmm. ay pèlerins nañ. Mm-hmm. gars mm-hmm. nañu teew. cest di dire gars nañ ñëw teew parce que loolu moom euh, la parade des marcheurs moom mun naa ne ça fait na si élément yu gën a faar. mooy moment yu gën a dans si si si kii parce que mhm. soo xoolee Popenguine loolu loo koy jox cafka bi marché bi suñu dugg siyee mhm. ndax soo doxee cinquante trois kilomètres accueil bi ñu lay nit yi am na ñoo xam ne doxuñu mhm. mais dañ lay fan parce que suñu xalaatee na yow li nga dox rek ñoom oto lañ ko jël suñu xalaatee li nga dox rek da lay xaar fan la léegi province bi nekk su ñëwee day wane boppam. Mm-hmm. wane kontaanam na gis foofu soo gisee foofu da mel ni comme si sax yow. yaa ngi soo ko tàmbalee. mais mais ci loolu ci loolu noonu ci affaire arrivé yu pèlerin parce que je pense que ndax di ngeen def lu mel ni comme CDD euh, préparer ñi nga xamante ñooy ñëw parce que je pense que arrivé yi ku nekk fa ngay jógee euh, ngeen mën teg même plan de circulation boo xamante ne peut-être du am benn jafe-jafe dugg ci euh, fi ngeen di defee mbir meeg yu mel est-ce que loolu yooyu di dégg def ngir préparer pèlerin seen arrivé comme lu ci mel ne. Euh, quand on prépare comme comme le màggal ñuy jugee euh, ñuy jugee dëkk bii nañ mm-hmm. nañ jaaree nañ jaaree nañ duggee nii ñu jugee Mbour wala ñu jugee ay Ziguinchor nii la ñuy duggee ngir mën a bañ a an andi embuscade ci ci ay lu mel ne ay problème mu euh, circulation yu mel ndax ndax loolu dina fa di am avant avant pèlerinage waaw loolu day di am loolu moom ñoo si ñoo ñu maa si profité di si remercier vraiment suñu force de sécurité mm-hmm. muy gendarmerie muy police muy euh, sapeur pompier yi tamit ndax dañuy si am nañ si wàll bu am solo. Mm-hmm. waaw ñuy remercier tamit di wu tamit euh, préfet bi ak gouverneur préfet wu Mbour bi ak gouverneur wu Thiès bi. Mm-hmm. instant bi xam naa ne nelawuñu. Mm-hmm. ñoo si préparatifs yi dem ba ngeen. muy mairie bi yëpp donc. Euh, am na benn plan bu ñuy bu bu ñuy teg chaque année plan de circulation soo ñëwee di nga gis gars yi dañ koy baliser dañ teg balisage bi gendarme ne la nii nay jaar oto bu nekk am na nooy duggee am nay am nay parking mhm. am na plusieurs parking mhm. léegi loolu nag ñoo la ñuy ñaan ñu seetaan suñu différents télé yi mhm. ndax euh, gendarmerie dina dina communiquer ci plan yi donc comme ça ku nekk su ñëwee mu topp am na benn périmètre boo xam ne nag euh, périmètre boobu mooy périmètre officiel bi boobu moom pour na pour sa oto mun fa yegg moom foog na am accréditation quoi foog na doon officiel mm-hmm. donc loolu nañ ko ñaan nit yi ñu comprendre ko mm-hmm. tamit euh, ñu xamee ne ñun ñëpp mënuñu suñu oto yi ñun ñëpp ñu dugg ba biir Popenguine mm-hmm. ndax ñun ñëpp suñu duggee biir Popenguine nit yi ñoo fa ñu dox ndax Popenguine euh, dëkk bi rëy na réyul moo ñu màgg chaque jour mais am na loo xam ne nit yi lu mel ni ay millier de personnes ay millions je peux dire sax dépassé na milliers jógee fu nekk Gambie Guinée yëpp ñoom ñëpp wutalu donc euh, pour ñu war a dox suñu oto dina métti donc loolu noonu dina dina am kii mais après nag même sans après loolu am na benn programme bu si topp toppalee xam naa bu damay bàyyi sama naataango bi mm-hmm. mu yeggali sud parce que boobu noonu suñu eggee nekkatuñu ay marcheurs ay pèlerins mais mais yéen ñëpp yéen a bokk même jour bi ngeen di ñëwandoo wala ni am euh, ci ci ci lieu bi non marcheurs yëpp ñoo yegg seen door que ce kuy jógee Mbour kuy jógee Thiès mm. ñun ñëpp ñoo yegg seen door dimanche bi mm. peut-être mën nañu bañ a yegg seen door même heure mm. mais ñun ñëpp ñooy yegg seen door donc loolu noonu nag dafa am mooy suñu kuréel bu mag bi bu ñu bu ñu boot. Hmm. moom mooy euh, coordonné arrivé bi parce que foyer bu nekk kër kër bu nekk am na heure bi ñu ko jox ne ko da nga heure boobu na war a egg. Hmm. donc ñoom si seen progression ni ñuy doxee dañuy sóoraale loolu. Hmm. parce que sinon day am euh, dañuy dañ ko coordonné de telle sorte que du am embouteillage cest à duñu duñu am télescopage duñu dalante. c'est-à-dire dugub bi day nekk par ordre ku nekk day dugg. nga def sa paraat Mm-hmm. wane sa mbégte kontaan yenn saa yi na gis sama mbokk waa jama gën yi mm-hmm. ah tarkindaay indi ñu sida sida xam nga rek yëngal ñu foofu waa mm-hmm. waa sama mbokk parcelle yi mi paa dañ doon indi Moussa si waaw ku nekk tamit yaa ngi paroisse bu nekk na wane li nga am daaw sama mboqu waa Kër daal ma bokk indiwoon nañ fa waa Rosa xandaalu ñu xumbal donc loolu loolu tamit si esprit marché la bokk mais loolu benn pàcc bu ndaw la. Hmm. mais damay ñaan tamit pàcc bu ndaw la gaa yi xam ne loolu pàcc bu ndaw la. bu ñu bañ si trop. Hmm. parce que loolu lu ndaw la c'est juste pour indi ambiance mais benn affaire benn histoire trente minutes une heure de temps la maximum su jeexee jeex na. ñu delluwaat si pèlerinage bi. Hmm. topp circuit parce que am na. booba ngeen moom bëri na ay euh, affaire yu war am moom mun naa bàyyi sama mm-hmm. naataangoo bi. Ah, surtout waaw comme ni ko Ligue waxee tamit euh, wax mun naa wax ne wax na lépp ah. Mm-hmm. wax na lépp te il a bien précisé aussi c' est bien c' est bon aussi ñëw leeral nit ñi loolu noonu muy marcheurs yi parce que marcheurs yu bëri bu ñu ñëwee ba Popenguine lan la ñuy wax man marcheur la man marcheur la bu ñu demee xase ba dugg Popenguine on n'est plus des marcheurs mais on est des pèlerins. Mm-hmm. ñu nag ñii di ñëw jour ji ñii di ñëw veille bi dimanche bi sax ñoo yem. Mhm. au même pied au même titre. Mhm. on est tous des pèlerins marché bi boo ko jógee Cap des Biches ba buntu marche euh, Popenguine mhm. foofu la sa titre marcheur yam mais bis boo amee accès bi Popenguine rek tu es appelé maintenant pèlerin. et non plus marcheur. donc donc nit ki mun na ñëw à mun na ñëw à l'avance avant avant jour J. waaw mun na ñëw à l'avance avant jour J aussi. e comité national tamit euh, ñoom ñooy gérer tout ce qui est l'organisation. au niveau du périmètre de Popenguine muy sanctuaire bi ak alentour bi yëpp buntu Popenguine toutes les extrémités fépp fu ñu def euh, balisation tout cela ñoom ñoo koy gérer mm-hmm. Sicomab amatulum fa gérer mm-hmm. Sicomab moom rôlam ça commence de Cap de Biche jusqu'à l'entrée de Popenguine mm-hmm. vous voyez donc comité national ñoom ñooy gérer lépp lu ci biir Popenguine kon dañuy ñaan dañuy yi déjà ñoom ñu topp digle ñu leen jox déjà Luc wax na ko tout à l'heure on remercie déjà nos euh, nos forces de l'ordre qui nous aident déjà ci liggéey bi ñuy def nile metti na trop metti na trop ñoo ngi leen ne masawu mais tamit loolu noonu yëpp dañ leen ciy gërëm di leen ci sant aussi mhm. ndax yombul c'est difficile de pouvoir canaliser tant de personnes ce nombre là mhm. juste se rappeler aussi aux marcheurs que ni suñu site bi muy village des marcheurs ancien site bi ñu yoroon foofu noonu la waa Sicomap nar a dal. Hmm. voilà kon marcheurs yëpp jarul ñuy inquiété wu et aussi pour la sécurité parce que am na commission bu ma fàtte woon sànq cité sax muy santé et sécurité. Hmm. ñooñ ils seront tout au long du marche. pour hmm. nous accompagner pour nous assister y aura les pompiers aussi. qui seront avec nous. y aura des hommes de tenue qui nous accompagneront aussi. kon loolu noonu marché na seen xel dal y aura aussi des ambulances ñi nga xam ne tamit ñu mën a tenir bon. Mhm. souvent ñoom ñooy yëg ambulance. Mhm. mais tamit lépp rek ci démarche de foi la ba léegi. Mhm. nga yegg oto nga yegg ak tànk l' essentiel mooy c' est bien c' est d' arriver à Popenguine. peut-être leen laa si mun yokk mooy euh, ñoo ñuy ñaax marcheurs yi suñu ñëwee ba dugg Popenguine ñu ñëw meesu 22h bi parce que meesu 22h bi mooy meesu marcheurs yi. ñoo ñooy ñaax ñaan la quoi c'est du du loo xam ne c'est forcé mais da la ñuy ñaax parce que am ñoo xam ne dañuy préférer dem meesu lënd bi mais dafa métti soo marché soo ñëwee soo xasee ba nopp dellu noppale pour na redémarrer day métti donc euh, am na ñu bëre loolu dañuy fay jaar duñu dem mees te soo doxee ba pop ngi demoo mees da nga da nga wàññi wàññi wàññi nga poñ yi mm-hmm. waaw donc euh, lu na ñëw meesu vingt bi euh, soo ñëwee na sangu reer nga enchaîné ñëw mes 22 na pare mes 22 nag après nag yaa moom sa bopp. di nga mun nelaw mai bi na bàyyi mes 10 bi ba 11h soo yeewee nga dem tent la rencontre seeti suñu seeti Yeesu Krista foofu adoré foofu. Mm. mun a dem grotte mun a def. lépp li nga mun def def say waaye dugub basilique. Mm. def sa def def sa circuit. d'accord mm. euh, ci question bi ma waroon na njëkkee sax euh, marche pèlerinage Popenguine fan la jógee historique bi yéen maa bëggoon waaw marche pèlerinage boobu ngeen historique bi dañuy ne suñu feu euh, colonel fay moom moo ko instauré woon en mille huit cent mille neuf cent quatre-vingt moom moo njëkk a marche avec un homme benn groupe bu restaurant mhm. ñoom ñoo tàmbali marche bi donc au fur des années effectif bi di gën di yokk di gën di yokk ba à ñu ne pourquoi pas canaliser mm-hmm. comité d'organisation et tout ça mm-hmm. Mm-hmm. ndax ndax marché dafa am aspect spirituel spirituel bi ci nekk loo xamante ne moom moo tax ngeen di ngeen euh, lu mel ne. Euh, ab lu mel ne lu jëmmal ki nga moom mooy suñu suñu suñu suñu suñu euh, suñu maam. maam Marie wala boog Youssou Christa ndax dafa am côté spirituel côté spirituel bu ci nekk boo xamante ne moo waral jëmmal li nga xamante ne moom mooy marché boobu. bon soo xoolee soo xoolee si déjà loolu. damay delluwaat tuuti ginnaaw. Mhm. indi historique ngin mhm. ndax Popenguine soo xoolee euh, monseigneur euh, Picarda. Mhm. moo àndoon ak ak euh, ay ñoñom ay abbé. ñu jógee Cap lu ñu woowee Cap Nass dox ba foofu bu ñu doxee ba Popenguine nag ñu gis ne fii moom. vraiment bërëb la boo xam ne mën nañ fi màggal Mariama comme nu ñu koy màggalee Lourdes et cetera loolu mooy nekk en mille huit cent quatre-vingt-cinq léegi si lañu commencé yi maintenant mille huit cent quatre la ñu inauguré Mm-hmm. université sanitaire léegi nag après nag dëkk boobu léegi nag gars yi dañuy jógee fu nekk ñii di ñëwee oto euh, ñii di ñëwee avant oto yi gars yi dox ñii doon ñëwee fas et cetera mm-hmm. ba oto ñëw gars ñëwee oto ñu gars yi l'essentiel moyen de transport yu gars yi jumtukaay yu ñu amoon pour transport ñu ko doon mm-hmm. bu ñu eggee nag ba mille neuf mille neuf cent quatre si la dem si yàlla colonel Pierre Faye xalaat ne pour pourquoi pas ànd ak ay jeunes ñu dox ba ba ngeen dox ñaanaale euh, woy yi xum kii pour dem vraiment wane ñun Mariama yitteel nañu. Mhm. loolu nag moo tax mu jógee nag moo ñu jógee woon euh, église bi ñëwee Sainte-Thérèse ak ay mhm. ak ay ak ay jeunes. Mhm. ils étaient aux alentours de d'une cinquantaine. ñu jógee foofu nag dox dem année si topp nag mu am ñeen ñu doon def yeneen commencé yeneen paroisse yi ñu commencé di dem mu dem nag ba tollu benn niveau boo xamee. ñu ne ah lii moom foog ñu taxaw nag ñu defar ñu saytu mbir bi. teg teg teg teg teg ay kii euh, teg kuréel. Mm-hmm. bu mun a gérer affaire parce que affaire dafa demoon ba nekkatul affaire boo xam ne benn euh, benn nit moo ko commencé. Mm-hmm. ñëpp dem dem na ba nekk affaire mbooloo. Mm-hmm. donc de ce fait noonu la kii gars yëpp nag commencé si jàpp mu nekk marche mais démarche foi bi. moo tax. pour juste wone bëgg-bëgg bu ñu am si Yesu Christa ak cofeel bu ñu am si Mariama. waaw parce que Mariama euh, dañ koy wax si Bible bi sax. Euh, comme Jésus nu mu waxee euh, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Mm. mais dañu ci yokk tamit ci Mariama da ngay xool ne xam ne Mariama euh, bu ñu jëlee ci Bible noos sa kana. Mm. Mariama dafa ñëw ne Jésus ñii de amatuñu vin cest di dire Mariama buntu la boo xam ne soo ko joxee sa soxla. Mm. mun na ñëw ne ko ah Yeesu moor mi soxla na lii de. jàpp si Mm-hmm. waaw noonu la fa loolu loolu si gàttal mun nañ ko expliquer noonu. 15 mm-hmm. mm-hmm. euh, minutes moo ñu deseel ma bëggoon ñu wax tuuti ci thème bi la moo familial chemin et vocation de sainteté euh, choix du thème bi laa bëggoon ngay ñëw si et son importance parce que gis nañu jeunesse bi tey on dirait que la jeunesse est en perte de valeur euh, ndax da ngeen ko teg sur la vie familiale mais également sur la vie en société. waaw thème bi soo xoolee thème bi. thème bi je pense que fii Sénégal soo nee amour familial vocation et chemin de sainteté de à dire bi tënk na ñëpp que ce soit muy prêtre ba muy ñun nit ki lay ki muy góor jigéen mag ndaw doom soo xoolee lu ñuy dund ci réew mi instant bii nii façon crise de valeur bu nekk am na fi. Mm-hmm. lépp am na fi. te thème bi soo xoolee dañ ko gën a si ci euh, amour léatis bu pape bi. c'est-à-dire bi bu mu ñëwee dafa def euh, ab bëgg dafa joxe bind benn euh, benn benn benn téere wax bëgg-bëggam si lu mu si si moom si nguuram lu mu bëgg a def te moom wàllum famille da ko soxal parce que soo xoolee moom la ñu woowee le pape social moom la ñu woowee pape social il vient de l'Argentine dafa jóge si dëkk bu am jaar-jaar donc xam na ne euh, famille dafa am importance donc loolu noonu ñu basé wu si loolu yëpp gis tamit lu ñuy dund instant bi suñu xoolee instant bii nii foofu si biir thème bi ñooy expliqué la mooy mariage. Mhm. naka lañ ko war a préparer. Mhm. ak tamit soo marié woo naka na war a comporter wu parce que léegi lu lu ñu lu ñu remarqué mooy jamono jii nii mariage daal dafa mel ni xaw ma contrat la de location la. Mhm. wala contrat de kii wala wala mu mel ni comme euh, ab application boo xam ne daal da ngay télécharger. nga utiliser soo demee moom soof rek na de na na mm. mm. su ñu duggoon léegi tribunal sama mbokk juge yi wala sama maam juge yi duñ ma bàyyi ma kii mm. dañ gis ne dossiers yi bëri na fa ay un an de mariage deux ans donc ñu ñu gis loolu yëpp ñu ne ah kon de jot na nag ñu toog nag ñu xool mbir bi nu muy doxee ñu toog ñu waxtaanee mbir bi gars yi xam si la la ñuy dugg balaa ngaa marié na xam la mooy mariage xam ne mariage bu benn jour ñaari jour même sax avant mariage soo nekkee ak sa coro ngeen commencé dund xamee dund foog mu am euh, foog mu am ay làkk-làkk ay gànk-gànk donc lépp mënu neex lépp mënu xëy neex même soo xoolee dund bi tey naaj bi day jóg mu saf-saf suba moom keer mu ngi koy donc loolu da si am solo ñuy expliquer tamit euh, pap naka la war a comporter wu ak doomam yaay naka la war a comporter ak doom ak naka la war a comparer ak borom kër gi doom naka la war a comparé papam ak naka la war a comparé yaayam donc relation yooyu yëpp complexité boobu noonu yëpp ñu koy expliquer ne ku nekk wax la ku nekk sa pacc si la war a nekk si famille bi parce que ñu ñëpp ku nekk su joué partition def naa ne si la musique bi di neexee. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. je pense que dina wàññi yenn yi euh, jamono ji agression yi bëri na quatre mars bëri na vraiment Sénégal toll nañ foo xam ne waaw yaakaar naa Abélique bi comme comme moom def na <laughs> homélium il a bien décortiqué le thème aussi ah parce que li mu ci wax yëpp euh, dafa essence parce que boo xoolee thème bi dañoo ne amour familial amour rek mooy mbëggeel cofeel mm-hmm. euh, ñi nga ñi nga nekkal vocation boo waxee vocation ëmb nga lépp muy labe gi muy laïc bi ñu ñëpp la boo la concerné ah chemin mm-hmm. muy yoon boo xam ne ñu ñëpp def ñu yóbbu pour ñu mën a euh, nan laa ko synthété Euh, ah, am sellaay sellaay mm. voilà ñun ñëpp ñu mën a sell parce que gis nañ ni jamono gi ñun suñu réew mii dañoo nekk ci crise des valeur te réew bu amul valeur tamit voilà musiba lay doon rek moo tax gis ñu gis yi nii yëpp muy agression yi chaque jour nga dégg des meurtres tout cela parce que one est dans une dans phase boo xam ne y a des crises des valeurs donc loolu noonu yëpp dañuy suñu suñu suñu évêques yi dañuy ñaaxaat encore jàngu bi day ñaaxaat fidèles yi ñu delloo seen xel ci yàlla parce que mbëggeel ak cofeel moo mën a defal nit aussi boo bëggee sa morom sopp sa morom ni yow ni sa bopp kon yaakaar naa lu bari dootoo ko mën a defati. lu ñaaw doo ko xalaat ci sa morom. Hmm. mais lu baax nga koy yéene lu baax ngay gis si morom. Hmm. kon mbëggeel boobu noonu bu ñu ko dundee ñun ñëpp rek. yaakaar naa Sénégal ci jàmm rek lay mën a nekk. Mm-hmm. Mm-hmm. si euh, ci li nga xamante ne moom mooy euh, organisation wu événement boobu parce que je pense que euh, day laaj ay moyens yu bëree bi ngi ci dugal loxoom à chaque fois parce que foog ñu fa nekk dinañ dinañ dinañ dinañ lekk dinañ naan dinañ def li nga ni moom mooy moom mooy añ ak moom mooy boobule événement parce que événement religieux la comme comme événement religieux yi am yi am bi Sénégal mm-hmm. ndax taxawaayu état bi di ngi ci am bu baax a baax a baax au-delà ci li nga xamante ni moom mooy moom mooy euh, implication wu fidèles yi ñoom tamit seen seen li joxe ko en guise de participation. waaw état bi moom ñuy taxaw aussi comme ni ñu doon taxaw at yi waa at yi weesu mais dañuy gën a ñaaxaat état gi tamit rek gouvernement bi ñu gën ci yokk seen loxo. gën ci liñ ci mën a def rek. voilà ñun on on on on sera toujours les euh, prenants aussi ah. parce que mm. tamit mënuñu woo tamit di ñaaxaale structures yi voilà muy entreprise yi. ñëw jàpp ci tamit parce que partenariat aussi dañ ko ciy soxla boo xoolee bu ñu nee pèlerinage déjà moment bu muy tombel tàngoor gi mm-hmm. donc on aura besoin beaucoup d'eau donc ndox googu noonu nañ ko soxla donc tout cela mais n'empêche ñoom ñoo ngi def seen seen wareef et comité national tamit ñoo ngi def li war mm-hmm. di gëstu di saytu tamit lépp loo xam ne ne pour une bonne organisation de cet événement mm-hmm. majeur waaw ñu mën ak moom ñu mën ko passé aussi ñu mu waree rek. ñu mhm. bon su ma lu si yokk mooy bon état bi ñoo leen jëfal déjà soo nee force l'ordre ne yëpp loolu yëpp état bi la ñoo ciy def seen loxo mais yaakaar naa ne état mu def lépp parce que réew mi fi mu toll foo laal day métti mais état moom moo si teg loxo moom que ce soit ministère yëpp gars yaa ñuy contacter ku nekk ministère bu nekk ak ponc bu moom. Mhm. te may fàttali tamit. Euh, je bi day tombe ak euh, journée de l'environnement mm-hmm. donc euh, ren lancé lañu lu ñuy wooye euh, zéro déchet mm-hmm. c'est-à-dire diggante Cap des Biches wala ba Popenguine ak yëpp nu muy demee dox bi gars yi bu kenn sànni dara mm-hmm. ñu jël plastique bi parce que dañu am kër boo xam ñu ñëpp ñoo ko bokk amul Mapaate amul ma Masamba moo Demba ñu ñëpp ñoo ko bokk ndax su yàqoo ñu ñëpp la yàqul donc foog ñu gestu xool nu muy doxee bañ a sànni plastique yi parce que soo sànnee plastique bi du décomposé wu donc loolu yëpp de am ay gàllankoor yu mu indi hmm. donc loolu noonu lu mel ni euh, ministère de l'environnement jege si nañ ñu ak waa eaux fore am na programme yu ñu yu ñu si fas yéene def ak suñu quinze ans yu ñuy fete tamit am na programme bu ñu war bu ñu war a lal si diggante année bi yëpp ba prochaine édition bi pour hmm. fete ñu quinze ans yi hmm. loolu am na si mais lu ñu question bu gën a am solo mooy partenaires yi ñu jàpp si ñu jàpp si c'est que vrai que partenaires traditionnels yi ñu tàmmoon di si jàpp ñëw nañu mais euh, loxo du doy. Mm-hmm. ku si mun teg loxo rek na si teg loxo. Mm-hmm. partenaires yu bees yi am na ñu si juddu entre temps ñoom ñëpp ñoo la ñuy woo xeebuñu kenn. Mm-hmm. lu waaye am rek. ñaar dërëm ñetti dërëm xeebuñu dara lu waaye yéene rek ne ah bëgg naa ko jàppalee daal bugg naa ko jàppale euh, euh, chrétiens yi lu lu munti ñëw rek. dañ on est preneur. Mm. Euh, marché année bi vous êtes euh, ren bon ñoo ñi si quatorze mille cinq cent xam na ni ñu koy waxee si olof nag. sama olof nag dafa fukki junni ak ah. euh, ñeent. Mhm. fukki junni ban paroisse moo indi le plus. ah. damay bañ a dóor ma nag. ça pose <laughs> mais on peut dire pour le moment c' est Mipa devant. Mhm. comme comme d' mais affaire bi rek Mipa ak Grand Yoff. ah da ngay diirante mbagg mbaaw temps yi fële na nag génn <laughs> ne dugal na bopp nag ne ma tam si tëccoo bi laa bokk <laughs> question si Comap euh, année bi vous avez quinze ans euh, ba ngeen ko taxawalee ba léegi ban bilan euh, ngeen ñu ci mën a tegal parce que bëri na ñuy ngañ si ko papa ah. <laughs> damay dégg damay ay affaires ci suuf notamment ci cotisation yi est que yéen yéen fixe ko cotisation yi voilà loolu moom naa si sawar trop pour ko ndax euh, non wax dëgg te yàlla tax euh, man mii nga ñekkatu si kamba bu mag laa woon maa daa kon ngañ si ko ma mm-hmm. mais lu ñuy naan mbir soo si nekkul rek doo xam nu muy demee affaire yi tar na métti na mm. sonn nañu pour mais dafa am lu ñu ko jaral démarche de fois la mais lu may wax comme par exemple euh, gars yi si biti ñoo ñu wax wax moom mënul ñàkk mais ku nekk soo amee sa xalaat dama lay ñaan a def ni man rek ñëw dugg si biir parce que xel du doy. Mm. c'est vrai que Sicoma bi mu nekkee fii 2005 ba léegi normalement 2020 la ñu doon mais amuñu édition euh, ñu mujjee ko fêté ren 15 ans yi am nay avancé parce que loo gis am na luy dox am na lu doxul mm-hmm. mais lu doxul yi dañuy ñaan tamit euh, gars yi gis lu doxul parce que yenn saa yi mu nekk si biir doo gis comme football rek ku nekk si biir mun na may dara ku nekk si biir di gis. nga ñëw nga wax nu muy ne ne ah lii de suma sama sama xalaat lii mun nañ ko changer lii mun nañ ko def mais soo xoolee comme par exemple ma jël ko ren cotisation yi ñun au niveau de Sicomap six mille cinq cent lañ jël mais paroisse bi nag mun na laaj ci plus par rapport ak ñoom seen organisation parce que am na paroisse yoo ne du ñu dal si village des marchés dañuy jël seen këru bopp am seen dalu bopp amu ñoo xam ne dañuy toggal dañuy yokk ay togg seen toggu bopp yooyu pour mun a toppatoo seen i paroisse bu nekk moo xam si biir année bi yan activité lay def pour mun a subventionner euh, marchand bi donc léegi si si biir loolu dina am paroisse xam ne dañu gën a xaalis ñii am na paroisse yoo xam sax dañuy am ay am na ñu la ñuy jàppale donc loolu moo tax cotisation yi ngay gis kii cotisé fii dix mille kii huit mille fee ñii cinq mille que ku nekk paroisse mais ñun si ko map six mille cinq cent la ñuy jël mais six cinq cent yi ñuy jël yooyu moo tax ma doon ñaax cinq partenaires yi ñëw si mille cinq cent yooyu soo xoolee dëkk bi nu mu mel instant bi xam na ne six mille cinq cent dara suñ ko daggatee six mille cent ñu jox la si t-shirt jox la si ndékki euh, euh, ndékki di dimanche. transport. ni ku ne euh, ni ku nekk six mille cinq cent. si six si ngay am lépp non si six mille cinq cent yi moo wax si lu si si génnee. non il y a déjà une chose. du cent. chaque marché. non non lu ñu lay budgétiser. mooy sept mille deux cent cinquante. mu hmm, ngay joxe. nga war a joxe normalement. Hmm. mais on a demandé six mille cinq cent par marché ce qui veut dire surplus bi des waa commission finance ñoom ñooy dem wuti ji surplus boobu. Hmm. pour combler loolu noonu. waaw cest à suma su laa la ñëw c'est-à-dire euh, six mille cinq cent yi. soo xoolee coût bi dépassé na six mille cinq cent. mais xam nañu dëkk bi métti na. déjà dafa joxoon nañu délai afa ñu puusaat ko ndax xawoon na tembere. donc euh, ñu jë ñu jàppee loolu ñu pouse affaire yi léegi soo xoolee coût marché bi ñu génnee si transport génnee si sa hébergement génnee si sa sa sa lekk ak sa naan ndékki añ reer ndékki mm-hmm. ñaari ndékki waaw ñu jox la si t-shirt mm-hmm. jox la si euh, manuel yu lay jox imprimer la ko saak yi loolu yëpp yëpp yëpp yëpp avec waaw ak assurance bi am solo si. parce que loolu fi six mille cinq cent yi si six mille cinq cent yi. donc xam na ne déjà rek loolu dépassé na six mille cinq cent. Mhm. donc soo xoolee coût bi ñun dañoo estimer sax sept mille. Euh, deux cent cinquante lañu estimé mais mm-hmm. soo xoolee sept mille sax dépassé na ko mm-hmm. mais xam nañ dëkk bi na ba soo waxoon yenn cotisation yi day métti mm-hmm. donc loolu moo tax ñuy ñaan partenaires yi ñëw jàpp parce que foofu la importance partenaires yi ñëw parce que day am ay gap yu ñuy cherché y a des gap de millions yoo xam ne dañ ko war a dem uti ji finance da ko uti ji ñun suñu comité mooy communication marketing war ko dem uti proposer ay woo kii ne ñëw leen euh, ñu jox ñu kon kon kon kon Sylvie sa sa saar gi nañ nañu daan leer comme ñun comme ñun ni ñuy <laughs> dina dinaa dinaa joxe temps bu tooy doo def ba naan si yu see saa am na am na benn rajo am na am na rajo bu ñu demoon politique dañuy non du politique mais nagaa nagaa daan leer nag mais mais bi je pense que war na dépasser politique man je dis que am na constat yu war a def xam na ndimbal balaa balaa balaa balaa mu ci fekk loxol borom mm. ñun suñu biir nañu waxante dëgg am na nit yoo xam ne féetewu nañ foo xam ne tane nañ ñeneen ñi. moom moo damay ne na gars yi daal leer loolu mooy sensu chrétien foofu laa nawee nag sa mbokku murid yi am na benn rajo bu ñu demoon gars yi la moo tax doo leen def lekk gratuit ñu ne ko comme comme comme comme comme Touba mais nag malheureusement Touba da nga gis kenn ku ñëw indi sans nag. na ko na ko sëñ bi am. mais fii nii. mais non non non gars yi mën gars yi gars yi mën ngeen ko. peut être peut être peut être kër yi bokkul fii prêtre yi ak kii bokkul. Mm-hmm. mais je pense que man man mii benn Luc Barela ma nekk chrétien ma am ko mun ko. def ko ah même su fekkee nag nit yi xam nañ ko wala xamuñu ko mais man si si sama biir bopp xam naa ne mun naa def dara mm-hmm. naa ñëw si jekk ak teranga def naa église moom bëri na sutura mhm. ndax confession moom mhm. suñu la fekkee baax di nga ñëw wax sa baax ku mun wax sa baakaate duñ ko xam mhm. def naa mun na ñëw joxe xaalis te duñ ko xam inchallah na ñëw ne ah man de maa dimbali si lii man de maa def si lii léegi def naa ñun ñëpp suñ ko jàppee def ko noonu je pense que dinañ dem ba benn instant boo xamee mun na ñëw ne marché bi ah ko cotiser 2000 francs kon baax na kon merci beaucoup Luc ngeen tàggatoo heure bi jot na waaw dañuy leen gërëm encore yéen di gërëm euh, auditeur yeeg auditrices yi ñu doon déglu di gërëm sama confrère bi muy lekk euh, pour présence am ci éclaircissement yi mu jot a wax di ñaaxaat encore marché yi rek. ko mm-hmm. bu ñuy marché ñañ sol loo xam ne ne voilà oyof na. ñu bañ a encombrer seen bopp bagage yoo xam ne c'est inutile aussi ah. daam amul dress code à part les MC que les pawas waaw ah, mais bul lu ñu lu la neex loo xam ne ne voilà c'est adéquat vous pouvez marché avec mhm. voilà kon book loolu rek la ñu mën a ñaax suñu mbokku marché yi mhm. waaw ñoo ñuy euh, si turu Sicomap euh, ak commission communication bu ñu teewal fii ñoo la ñuy remercier Rewmi FM déjà si occasion bu ngeen ñu jox pour ñu mën a euh, jàllale message parce que def naa ne gars yi bëggoon nañu xam nu muy demee parce que deux ans amul. Mhm. donc bëggoon nañu xam ni muy demee. donc ñuy ñaan marché yi suñ ñëwee ngir yàlla rek ñu topp digle yu ñu joxe topp lépp xam ne dañoo ñëw pour ñaan ñëwuñu pour colonie de vacances ñëwuñu pour feetu wala fe feet mun na am parce que feet la. Mhm. dañuy dañuy feet feete feete esprit saint feete mhm. Mariama mais ñu def ko dans la mesure. loolu am na si solo te tamit euh, ñuy ñaan. comme lu ñu ko wax ren rek dañu dem ñaan donc lépp luy wàllum alcool jaaykatu alcool yi ñun ñaan leen rek ñu jéggal ñu rek. Mhm. ñu bañ a indi yooyu foofu Popenguine mhm. bañ a indi yooyu Cap de Biche ñu xam ne loolu yëfu ñaan la d'accord merci mhm. beaucoup Mofal merci beaucoup mm si merci Sicomap di comité interdécanal de coordination de la marche pèlerinage di gërëm Luc Barilla ak Jacksina ñu leen fi toogal euh, di gërëm Léon Paul Mendy mi fete woon ci technique bi ak mboole mbokk déglukat bi doon bàyyi xel ñu jox dig mbokk yi mercredi bii di ñëw même heure même fréquence beneen thème ak yeneen invité